yéen kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf manding wéet na àll bi yaraax na gayndeg si ga faatu na mboolem yéen a kay ñu xëy ndol xëy di ñu tàgge ak di jooy Pape Bouba Diop stade yéen kay ñu ci xëta bu njëkk Pape Bouba Diop à jamais le premier maanaam bari na ci footballu Sénégal loo xam ne ba léegi mooy wéy di ci dégg guléet ba faw mooy doomu Sénégal bi njëkk a dugalu but ci coupe du monde mooy footballkat bi njëkk faatu ci footballkat yi woon 2002 démb ci dimanche ji ca la faatu ci ñeen fukki atam ak ñaar ministre des sports di Matar Ba président fédération Sénégal bu football di maître Ndour Pape Thiaw ba ci abi béyu ku ci nekk ci ñoom seede su def jëmee ko ci ndem si yàlla Pape Bouba Diop mi ngi ci biir stade ci xët mu njëkku record yéen kay nataalu Pape Bouba Diop kersa gu bari ga kanam gu lewet ga mooy li gën a fës ci photom bi ci journal bi journal bi dolli ñu ci ne wopp ji ñu naan maladie de Charcot moom la amee woon moo ko yóbbu adieu Pape Bouba noonee la ko journal record xëy tàggo journal l'observateur mi ñu dëggalal ne maladie de Charcot ne ñaari at ngi jugul ci chaise roulantam ci semaine bi journal bi nee nañu ci la ko waroon rapatrier jëlee ko France indi ko Sénégal Alaaji Ousseynou Diouf dox na ci lu nekk avion médicalisé bu président de la République moo ko waroon a jee ca Lens ga ca France delloo ko Tëngéej gi ci Sénégal Sud Quotidien ak la Sénégal nañu gaynde ga Pape Bouba Diop ñàkk na maxam bu mujj journal Les Échos tënkal ñu wax ji ci ne ki daaneeloon France daanoon a commerce yi ñoo bu ñu sàcc ca la ñu wàccee wakaam gis fa lu gën a garaaw lu ñu doon ñu fekk ñu séquestré leen ci génn kër di leen maltraité fukk ak juróom-ñett la ñu fa fekk ca la gaañi wéyelee seenub enquête dem ca Géejawaay ak ca Malika gisaat fa lu ni mel ñi ñu téye woon ci centre de redressement yi doon leen maltraité l'observateur nee nañu gendarme yi nee nañu libéré nañu ci ñoom lu mat ñetti téeméeri doomi aadama ak juróom fukk ak ñett benn xale bu jigéen ma nga ca woon ak juróom-ñaari mineur gendarme yi jot nañu it xibaar yu leen wax ne bari nañu ñàkk seen bakkan ci centre de redressement yi moo tax ñu ubbi ci enquête Walf Quotidien quotidien xëy jël xibaar bi teg ci xët bu njëkk tegal ñu ci ne ci ñi ñu séquestré woon ci centre de redressement yi nee nañu am nañu ci faatu vox populi nañu mbir mu yéeme moo xew ci daara yu sëñ Moodu Karaay ñetti ñu bari ci ñoom bi leen gendarme yi di gis xiif ak feebar la leen fekkee am na it yeneen ñeent fukki doomi aadama ak ñett yu ñu ne ci gaa yi sëriñ Moodu Karaay la ñu bokk gendarme yi teg nañu leen loxo enquête yéenekaay moom xëy jël loxom teg ci gémmiñam doon wër ba yem ci ay doomu aadama yu ñu séquestré ca Wakaam ca Géejawaay ak ca Malika nee nañu ay centre de redressement la yoo xam ne Serigne Modou Kara moo leen moom moom Idrissa Seck mi moom parti réew mi dàq na Déthié Fall ci poste vice président bu parti réew mi Le Quotidien Les Échos Soleil National La Sénékay Libération Vox Populi Sud du ak L'Observateur ñoom ñëpp xëy dal ci xibaar bi Sud du nañu keroog ci assemblée nationale la Déthié Quotidien nañu kurpañ bu dal Idrissa Seck dóor kii di Déthié Fall ndax nee du nangu mukk ñu ànd ak moom kenn di ci jóg naan mi ngi ŋàññi doxinu Macky lii Quotidien nañu mbete chien de garde journal bi di méngale Idrissa Seck ak xaj buy garde Macky Sall kaddu yi Idrissa Seck ci xët mu njëkk la mooy wax ne Déthié Fall li mu duggul ci gouvernement bi loolee moo ko mitti journalisé ku nañu waaye waxam joojee moom Idrissa Seck honorable député Déthié Fall weddi di ŋàññ ak a jébaane muut baa mottu gi Macky Sall di def tey jii nag moom yi Idrissa Seck mu wëlbati ko di ko def sursoi nañu lii Idrissa Seck ne mbiri Macky ku ca munta wax lu baax na ca noppi Déthié Fall moom dem ba assemblée nationale di fa attaqué Macky moo waral idi ootal ko ba ca raaya écrasé ko fa bu Macky Sall sampaate am dëndam ngir wut beneen mandat ci réew mi ci yoon la koy teg Vox Populi nañu ministre enseignement supérieur Macky Sall am na droit amaat beneen mandat ndax mandat juróom-ñaari atam bu njëkk bi constitution bi boolewu ko ci wàññi bi ñaari mandat juróomi at yu tegaloo la constitution bi wax Macky Sall def na benn mu dese ko beneen la tribune nañu Cheikh Omar Anne wali dina troisième mandat bu Macky Sall bi suur nañu li wax ci troisième mandat bu Macky Sall bi ni mu leere la mu wax keroog ca kanamu député yi ba ñu koy woteel bit wax joojeet noonee la leere réclamation yu taxaw journal bi teg teg ci wax ñu li ministère enseignement supérieur wax keroog ca kanamu député yi ngir lu jëmale kanam enseignement supérieur yi la nañu moom Cheikh Omar Anne ministre enseignement supérieur dem na bay xam ne yu état bi génnee ngir fay bor bu mu warlok université privée yi ci réew mi but sebranam la ne nañu mi ngi toll ci ñeenti ak juróom fukk ak lu teg ñu teg wax joojee te yëkkati leneen Fatoumata Diouf ca ndajama fa la Fatoumata Diouf Guèye leerale yoon wi mu xuti ngir doxal ko dénk wax na fa it li waa coalition Macky 2012 fas yéene ngir xeex wàllu immigration clandestine coow li am ci licence de pêche yi ñuy wax ci diggante Sénégal ak Union européenne Soleil national nee nañu moom Fatoumata Diouf Guèye coordinatrice coalition Macky 2012 leeral na la ci am yépp ak mbir yàgg nañu tëddee ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr Les nee nañu keroog ba mu demee ci assemblée nationale dalal na xelu député yi am ci deuxième vague am bi Soleil national xëy ñu xamal coronavirus boobee ak li mu yàq ci réew mi nee nañu tax na lu mat 37 344 doomu aadama ñàkk seenub liggéey wàllu yoon Souleymane Teliko ci kanamu conseil discipline magistrature bu Sénégal altine tey jile ñu fàttali ne danoo béggul ñoom kilifteef li ci wàllu yoon ci taxawaay ak gis-gisam ñeel àtte ba fi woon ñeel Xalifa Ababacar Sall bi mu gisoon ne ci àtte ba yooyee jamono wàccoo woon dëgg ak lii di ak kii di euh, maire ab Ndakaaru ñeel mbiri euh, caisse d'avance euh, wàllu xibaar bokk na ca jëlee gi nga xamante ni jëlee nañu ko ci postam ne vice président bu parti réew mi Déthié Fall dégg na nangu dogal bi jox nag dige daje ngeen baal ma ñi nga xamante ni ñooy askan wi eh, ci lu yàggatul lay doon waaye ci bataaxal dem bi nga xamante ni siiwal na ko moom vice président ba woon bu parti réew mi weddi na ba mu seet eh, kàddu wala xibaar yi tukkee ci kilifteefal parti bi mu bokk ne da doon yóotu poste député wala ministre dara amu ca leneen ci xibaar ñeel wàllug eh, xibaar bu tiis démb àddina football bi ci Sénégal rawatina dund ko muy génnuk àddina Papa Bouba Diop bu nu ko tuddee ni noonee la firi woon waa Sénégal euh, ci mondial ba woon ci Japon 2002 ak bitam bi nga xamante ni euh, kenn dootu ko fàtte ginnaaw jàngoro ab diir bu ko tëral moo waral paatu gi euh, senegaal yëpp dale ko ci njiitu réew mi ba ci axlul espoor gi ñëpp ànd maase ci li nga xamante ni mooy xereñ ga woon ci football bi ñeel ko moom Pape Bouba Diop waaye it yar bi nga xamante ni daka masa wu ne ak ci ku ci technique bi abdulay Diop. ñu tàmbalee xibaar yi ku tiis accident bu métti boo xamante ni am na ca diwaanu luga mbëkkante diggante bu wata particulier akub saret ñaari bakkan rot na ca ñeent ñeneen am ci gaañu ñaar ñoo sonn lool ba ñu rawale ci hôpital régional bu diwaanu Louga leeral na lieutenant Mamkour Sall mooy commandant compagnie sapeur pompier bu Louga ñu teewlu kook Abraham Paul Pouy fukk ak euh, juróom-ñeenti waxtu jotee ba teg euh, juróom fukk simili ak juróom la woo pou euh, benn accident benn charrette am bi benn oto renversé fële ca Guet Ardo bi ñu déplacé wooye ba yegg ci béréb bi gis nañ ne am na juróom benn nit yu impliqué wu ci accident bi juróom benn nit yooyu am na ñaari ñu si am gaañu gaañu yu jéggi dayo am si yeneen ñaari ñoo xamante ni gaañu gaañu yu yem lañu am mu am malheureusement ñaari nit eh, ñi si ñàkk seen bakkan ñi si ñàkk seen bakkan ak blessé yi transporté lañ leen eh, assister leen yóbbu leen fële ci hôpital euh, bu Louga ci intervention boobu plus de ambulance su sapeur pompier yi amoon nañu ambulance su district bu Koki bi ñu ñëwoon xeetali ak ambulance bi jógee woon bu Njañ donc euh, fi ñu toll nii donc euh, victime yi ak corps sans vie yëpp évacué nañ leen fële ci l'hôpital bu Louga. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. juge Souleymane Teliko euh, ci kanamu conseil discipline euh, bu euh, magistrature bu Sénégal ñu fàttali rek ne kilifteef li ci wàllu yoon li nu ko sikkee mooy ak taxawaay ki kàddu gis-gis ci wàllug at ba woon ñeel maire bu Ndakaaru bu woon Khalifa Ababacar Sall mu gis ne wàccoo woon yëpp ak ak ak yelleefam ci mbiri caisse d'avance gi loole di fàttali gis-gis beneen bu ci UEMOA amoon taxawaay googee nag la ko kilifteef li ci wàllu yoon toppee boobaak léegi ba waral ak wooloom tey ci suba ci kanamu. conseil discipline ni ñu ko waxee leeral li Salif Sow woo bu ko naataangoom yi woo tey mu ngi am fanweeri fan ak ñaar ginnaaw ba ko beneen naataangoom dégloo ca Ziguinchor mooy procureur général bi Assane Ndiaye moo nekk rapporteur désigné Souleymane Teliko moom di président UMS li ñu koy toppee bokk na ca ñàkk respecté gu mu ñàkk respecté liggéeyam jëriñ gu ñu denk wàllum yoon ci biir réew mi di El Hadji Malick Sall moo ni gisee te nee na ay daan faw ñu teg ko moom Souleymane Teliko loolu taxoon conseil de discipline bu conseil supérieur magistrature bi ñu yëngaloon ko mu def enquête xam dëgg-dëgg mbir mi nan la demee ak Souleymane Teliko lan moo tax respecté wut yenn yi nga xamante ni moo leen tënk ñoom magistrat yi waaye igage tamit si la leen waa ministère dugalee ci mbir mi le Souleymane Teliko ñu fàttali leen ne waxoon na ci mbirum Khalifa Ababacar Sall gisoon ne ne dañoo salfaañe ak ak yelleefu fukki fi nekkoon maire bu Dakar jëm ci wàllum lu ñuy wax caisse d'avance leneen loo xamante ni yeyoon na ci yàbbi mu nakari woon kilifa yi moom Souleymane Teliko mooy magistrat Diop bañ ko affecté daal di wàññi dooleem ndaxte moom Ngor Diop dafa am benn kilifa diine ci diwaanu Podor boo xamante ni da koo tëjoon te moonte kilifa yi ñaanoon nañ ko mu daal di lànk ci seen wàll lu ñu dul nangu ñoom waa UMS mooy daan bi nga xamante ni fas yéene nañ ko daan seenub njiit teg ci tamit tas seenub kuréel ñoom ñoo waxee ni ni leneen loo xamante ni wax nañ ko ñoom magistrat yi tënku ci kuréel googu nee ñu daan biñ ko bëgg sax daan fiñ ko jaarale ñoom kilifa yi dara du ci yoon. jërëjëf Salif ba tey ci xibaaru suba seek RFM ñetti téeméer ak juróom fukk ci doomu adama yu nu fekk ci ay centre euh, ñu duppee centre ngir ak jubbanti ñeel askan yi nga xamante danoo gis ne lu war la ci ñoom jubbanti googe anam yéen leen fa fekkee nag euh, ci wàllu nekk ku dundin la yoon rafetluwul waral gendarmerie euh, loxo responsable yenn yam ca fekk ñu fàttali ne centre yooyee moomee lëg sëriñ Modou Kara Mbacké noxëy ni la ñeent fukk ak ñett ci ñu yoon woolu it ci moomee mbir enquête bi ñu ngi koy wéyal lamin Ba lépp ngi tukkee ci ab enquête bi nga xam ne waa section recherche ñoo ngi ko doon amal ci benn sàccub scooter bi nga xam ne amal lañ ko ci guddig ñaar fukki fan ak juróom benn dem ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre bi ñu ne waaye ci wakaam moom sax buñ fa demee na dayoo euh, lii euh, yéeme ci mbir moomu mooy ñooñu fa ñu nekk dañu leen tëj leen toroxal boo gisee ñi nga xamante nii ñii dañu coo am ay gaañu gaañu ñii feebar euh, ba mënatuñu dara da ngay am yaakaar ne njort ne dañoo tàggox seen sagu tellement li ñu leen tëj foofu ah li ñu leen di mettital euh, dafa maanaam wëlbati seen xelaat. élément yi section recherche bu gendarmerie wéyal nañu li nga xam nag moo di seen l'enquête waaye dem nañ ba gis yeneen ñetti bërëb yi nga xam ne ñoo fa teg ay doomu aadama leen teg ay mettital ñu dem ba Géejawaay euh, dem ba Malika waaye tamit dem zone B fekk nañ fa euh, ay gone ak ay mag yoo xam ne même toogaan bi nga xamante ni moom lañ fekke woon ñi nekkoon Wakaam Mamel ci la ñu toogaan mu am aussi ñoo xamante ni dañoo feebar ñii xaw xaw a sax tàggoo ak seen seen seen xel ñu toll nañ ci lim boo xamante ni mot na ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñett waa gendarmerie bu ñu wéyalee seeni l'enquête dem nañ sax ba teg loxo kenn ki nga xam ne jàpp nañ ne bokk na ci ñi nga xam ne nag responsable lañ ci mbir mi ci yenn responsable yi nekk foofu itamit am na ci koo xamante ne nii euh, dañoo fekk ci mu nekkoon ay paquet de chanvre indien lu toll ci mooy yamba lu toll ci juróom benn te kooku dafa jot a daw dem laxu ci kër Serigne du Kara euh, nga xam ne doom ji euh, ginnaaw si moom moo ko delloo siwaat jàpp ko indi ko section de recherche ndaxte commandant de section de recherche Euh, daf ko euh, digal ne ko nañu ko indi. jamono ji nag gendarmerie teg naa loxo ñeent fukki ak ñett doomu aadama yi nga xam ne jort nañ ne seeni loxo laale na ak li nga xam ne moo di mbir mi ci jamono jooju nag ñu ngay wéyal l'enquête ba Lamine Ba Ziguinchor rajo Futur Media. Lamine jërëjëf ci wàllu woowu Serigne Modou Kara Mbacke noo rëy ni ci xibaar dina amal janook taskatu xibaar yi altine tey ji bu ngoonee ñeenti waxtu lay doon conférence de presse bi bataaxal bi nu ko yëgal xam le ni mu ngi euh, kon di aju ci wàllu karangeem. leneen ci xibaar ñeel wàllu wér-gu-yaram ak xibaar bi jëmoon ci ne jafe-jafe dafa am ci jumtukaayu paj ñeel ñi amee jàngoroy roño ministre bi ñu denk santé ak action sociale ne demee wu ni Abdoulaye Diouf Sarr donte yëf yëmu ne ñu ngi woon ci tension waaye ak jubbanti ci saa si lan ci indi ci wàllu kon yooyee jumtukaay ngiram paj bu sañoon daal mu ne xibaar yëpp yu ñu yëkkati rawatina maladie ci fànn woowee doon yu wér mu ko xam ne ci kanamu assemblée nationale pa pa Balla Gueye bàyyeeku gi ak yenn ci geste barrière yi nga xamante ne daanaka kenn respecté tu ko boole nga xamante ne mu ngi gën di law doon loo xamante ne tiital na bu baax député ya nekk ci assemblée nationale ñoom nag ñuy ragal ab ñaareelu vague goo xamante ne boobaak léegi ñu ngi koy wax député bii di Marème Solle Ndiaye bokk na ci ñiy njëkk a artu. que ñu nekk ay volontaire waruñu xeex ba heure bi ñuy bàyyee parce que dañ ko tàmm di wax ñun sénégalais yi tàmbali lañ mën waane mënuñu fin donc je pense que SNEPS bàjjenu gox yi ñi nga xam ne mobilisé woon nañ ñëpp war nañ jugaat. Sénégal jamono jii di xaar ay vaccin gannaaw saytu yoo xamante ne am nañ ko ci àdduna bi yëpp Alioune Souaré moom nag muy xamle ne faw rek ñu daal ciy def ndànk jamono yi lee. mais en tout le ministre. monsieur le ministre euh, dama lay interpeller euh, ndax boo ko seetee waa Amérique am nañu seen vaccin Russie am nañu seen vaccin Angleterre am nañu seen vaccin chinois yi am nañu seen vaccin dama ragal nag euh, jafe-jafe yëpp fii ci Afrique ndax am na ay yoo xam ne jël nañ ko ngir mën a fànq loolu yenn saa ñu naan vaccin bi efficace na téeméer ba jël juróom-ñaar fukki ñu ne téeméer boo jël juróom-ñeent fukki kon loolu nag problème la. vraiment ça pose ñii di laaj ay ambulance ñii di bëgg ñu daal di yokk plateau technique bi Abdoulaye Diouf Sarr nag daal nay tontu ci mbir yooyu donte nag waxul loolee lépp kañ lay doon waaye nag muy dalal xelu askan wi ci feebar googu nga xamante ne ba tey ji kenn xamul lan moo ko sookee. maladie boobu euh, ñi ngi actuellement si gëstu bi. gëstu bi nag ay étapes yu bëri la. étape bu nekk dafa am hypothèse a li ñu leen mën a wax tey mooy que ne du virus moo ko indi beneen bi du produit toxique moo ko indi song nañ nag seetu algues yi ba xam est-ce que algues yi moo ko indi liggéey boobu la ñu nekk ak waa centre poison bés bu ñu amee résultat yi si fan yu new rek danañ leen ko yëgal budget programme bu atum 2021 ñu daal di koy natt ci 216 milliards 580 millions ak lu topp ñoom nag député daal nañu koy voté ñoom ñëpp gannaaw fukki waxtu ñaar yoo xamante ne amal nañ ko ay débat mu nekkoon ci lu gën a yaatu kon euh, Ndéthié Pape Balla Gueye ci jaaruk euh, ministre de la santé ci kanamu assemblée nationale ak li nu fa yëkkati yëpp ne euh, lu yitteel askan wi ci wàllu wér yaram tukkee ci député yi jëmee ci moom ak leeral yëmu ci indi fàttali ne budget bi ngir wàllu wirgu yaram ci gouvernement bu Sénégal ngir atum 2021 ak yokkute am na ca ñaar fukk ak juróom mi milliards ñëw dolliku ca ñu ngi ko kon daal di arrêté ci ñaari téeméer ak fukk ak juróom benn milliards yu tegal juróomi téeméeri million ak juróom ñett fukk euh, budget bu ministère de la santé euh, ci wàllu waxtaan ak démb gi fàttali ni député yi sàkk nañ ci ministre bi ñu gën a taral xeex beeg jàngoro coronavirus rawatina bi ñu gisee fan yi luy nuru ne ak dekkiwaat ñeel jàngoro ji fii ci Sénégal leneen ci xibaar ak RFM ca jas bi yoon foofee ñi nga xamante ni ñooy mairie ba waaye askan wa ñoo rafetluwul ñu ne rawatina maire euh, njiitu Sénégal président Sall yi doxale boobaak léegi ki décret euh, rek affecté état bu Sénégal suufas dias loolee da leen di gàllankoor rawatina ci wàllu koom Cheikh Tidiane Diouf ñu teewlu ko Abdourahmane Diallo Cheikh Tidiane Diouf maire Dias maa ngi demandé le président la République pour que mu accompagner Dias ci politique bi nga xam ne moom la ñu parce que tey li gën a ci PSE président la République dafa nekk Dias kon ma jàpp ne tey dafa nekk une urgence c'est l'occasion mooy le député Pape Songo Diouf li tax may wax ne ma remercier ko mooy tey jii li ñu ñaan le président la république mooy ko projet bu ñu mus a teg fii jas daf ko ci accompagner parce que askan bu am yar la askan bu am teggin waaye jas dafa am jafe-jafe jafe-jafe mooy lan fépp foo tourné suuf soosu état bi teg na ko loxo tey jii dem nañu ba xale yi màgg nañu war tabax amatuñu fu ñuy tabax parce que lépp dañ ko titré au nom de l'État kon décret yooyu nga xam ne président Abdoulaye Wade moo leen jëloon ñu ngi ñaan le président Macky Sall mu modifier décret yooyu ndax doomu jas yi mën a am fu ñuy dëkkee ndax moom rek moo ñu ci mën a dimbali du keneen façon démarche bu nekk def nañ ci et l'honorable député Pape Diouf à l'Assemblée nationale dossier boobu mu ngi koy plaider mu ngi ciy wax guddi bu mu ci wax bëccëg mu nekkoon maire Diass Cheikh Tidiane Diouf Euh, gis-gisab njiitu réew mi daa war a bawoo jam ñaajo wutali ci gox yeneen ci Sénégal Déthié Fall ni waxee di fàttali kàddu yëfu woon tukkee ci Idrissa Seck ci boppam ci atum 2017 mi doon wax ne gis-gisab président Sall jam ñaajo la yam waaye yooyu kàddu jural na ko moom poste bu vice président Déthié faal ndax euh, parti bi ci bataaxal bu mu siwal démb daf ne daa worook euh, lanu jël néew doxalin boobaak léegi ñu daal di amal jalog national ak ba ne nu fekk jee Macky Sall ci nguur gi jàppoon nañ ne communication bi nu ba mu waxee dafa waroo ak li parti bi tëral Jo Maroon genn leer jële bi nga xamante ne jële nañ ko Déthié Fall ci poste vice président bu parti réew Rewmi liñ ko fa jële nag mu ngi ama ca teewaayu ki nga xamante ne mooy sa Seck di président parti réew mi li tax ñu dàq député Déthié Fall ci poste vice président parti réew Rewmi bu ñu sukkandiko ci bataaxal bi député Déthié Fall donte sax dañ ko artu woon dafay wéy rek di jël yoon boo xam ne ci mbirum communication dafa wute lool ak tëral bi nga xamante ne parti bi tëral na ko tëral bi am foofu ca parti réew mi mooy rek bëggatuñu mukk indiwaat coow li nga xamante ne dafa bàyyee ko ca campagne électorale ci atum 2019 ak coow li nga xamante ne moo ci ruse woon bataaxal bi yokk ci ne loolu yëpp fay na ndax dialogue national moo ko waral ak coronavirus bi nga xamante ne war na tax góor ñi ak jigéen ñi ñëpp wone li nga xamante ne mooy mbirum patriotisme donte Idrissa Seck ak kii di Macky Sall déggoo nañu jamono ji ki fi nekkoon vice président parti Rewmi député Déthié Fall dafa yëkkati woon ay kaddu di ñaawlu doxalinu nguur gi fi nekk gannaaw bu mu nekkee ca assemblée nationale bi député di woote budget bi nga xamante ne moom la ñu jaglele ministre agriculture ak équipement rural da ci fal nag yëkkati woon na ay kaddu jëmale ko ca mbirum tukki bi jaarul ci yoon yokk ci nag fësalaat kaddu gi nga xamante ne sa Seck waxoon na ko jëmale ko ca Macky Sall mu ne gis-gisu Macky Sall ca jam ñaajo layam waaye nag war na mën a weesu fii moom Déthié Fall jo Maroon ci bataaxal daal di euh, dalloo lii di euh, dogal bi yëg na ko mu ne euh, indi nay leeral nag ci wàllu li nga xamante ni mooy càkkutéef jëm ci nekk ministre wala député musul sàkku post bu ni mel mu ne ci li nga xamante ni moo ko ñeel moom Déthié Fall professionnel la bu mas liggéey ci privé gi ci mas a yittewoo lu may nekkinu askanu Sénégal Sénégal googee euh, ci tiis démb euh, ak nangu dogalu borom bi naam waaye ñëpp am lu leen métti ci génnuk àddina Pape Bouba Diop ndax li mu leen doon euh, fàttali ci mbégte waaye ci yewwi ñeel équipe nationale bu Sénégal suñu digg ak France ca mondial ga woon 2002 moom Pape Bouba Diop génn àddina ginnaaw ab diir bu ko jàngoro tërale Sénégal yëpp méttitu ko njiitam président Sall ci bataaxal métti lu paatu gi xam leen ni perte gu mag la ci Sénégal fàttali ko moom jour ba respecté woon ñëpp waaye ñëpp respecté ko Euh, amoon talent lool doon ñu fàttali ni mu ko waxee ak mbégte li nga xamante ni mooy taxawaayu Lions yi ci atum 2002 gëwoon jébbal njàlla moom président Sall ci tweet njaboot gi waaye it euh, ak lul football gi yëpp naka noonu it euh, ci wàllu Twitter waa Racing Club Lens bi nga xamante ni fa doon yëngoo moom Pape Bouba Diop ñoom daal tiisenuk at yi fédération internationale football FIFA naka noonu ñoom jàpp nañ ne sax ci wàllu hommage yi ñu ko defal doon na ba faw héros ci wàllum daal yëngoo ci àddina Euh, dañuy déglu it ay seede tukkee ci ministre sport ba fi woon Sénégal Joseph Ndong gunge woon mondial 2002 gaynde yu Sénégal moom jàpp na ne ci yooyu jamono ci génération boobu Pape Bouba Diop doonoon na ki libéré ci gàttal Afrique euh, sunu digg ak réewum France ñu teewlu Joseph Ndong. tiis la la vraiment bi ma ko seen journaliste bi waxee euh, mu nekk loo xam ni il faut ñu gëm yàlla rek maa ngi jaale nag famille yam njaboot bi yëpp nga xam ni ñu ñàkk Pape Bouba Diop di di jaale tamit ak e coéquipier am yi maanaam ñi mu daan àndal football bi ñi nga xam ni aussi nekk nañu ay xaritam di ko jaal Sénégal yëpp ndax Pape Bouba Sénégal yëpp yëpp yëpp yëpp la liggéeyal maa ngi fàttaliku ba ñu demee Séoul ñi nga xam ne noonu la doon comporté woo depuis ba ñuy enregistré wu noonu mhm. la ñuy dellu si xale bu yaru xale bu am teggin bu am itte ci nit te foo ko fekk rek joie de vivre ngay gis ci moom mu nekk koo xam ne man man mi de respecté woon na ma trop ni mu doon waxe ak man ndax ni mu doon joxe xalaatam vraiment maa ngi koy ñaanal yàlla amin monsieur le ministre Joseph Ndong Malal Junior Diagne ni nu ko euh, waxee seede yëpp di benn ci Pape Bouba Diop talent bi naam waaye yar gi. waaw moom nag doon na xale boo xam ne dëgg dëgg ci ba mu nekk équipe nationale ba mu fi jógee kenn amul lenn lu ñu ko ŋàññee ci wàllu jikko ci wàllu comportement ak ci wàllu jëm ci liggéeyal réew mi ba fii nu toll nii moom mooy benn Sénégalais bopp lu mu dugal ay but ci coupe du monde te itam lu mu defoon ci diggante Sénégal ak France ba léegi way la wutootul fay. maître Augustin Senghor président fédération bi nii euh, Sénégal ak footballu Sénégal ñàkk nañu jëmm ju amoon solo ci euh, taxawaay ñu déglu ko. tey euh, monde sport yëpp ak euh, football sénégalais yi ñoo am naqar nañ ne sax àdduna si yëpp parce que Pape Bouba vraiment euh, bett nañu gën na àndum àdduna boo xam ne xaaruñu ko woon mm-hmm. mu nekk loo xam ne vraiment lu tiis la lu tiis la tamit mm-hmm. parce que ku tudd Pape Bouba xel sa xel de dem ci lu bare bare bare xool tamit li mu jot a def pour football Sénégal ak niñ ko ràññee woon ci àddina si ak coupe ak génération boobu nga xam ne ñoom ñoo marqué histoire wax nga wax nga dëgg. rek wax na askanu Sénégal yëpp ñoo ñàkk tey. Mm-hmm. ñu ngi ñaan yàlla xaaree ko àjjana. na amiin euh, di ko jaal euh, euh, mbokk mi. Mm-hmm. mbokki dereta mi comme mbokki sport mi. oui oui. di wax rek ne yàlla na ko yàlla xaaree àjjana. amiin kooku di kaddu président fédération bi waaye itam El Hadj Ousseynou Diouf nekkoon 2002 ba ñuy sax def jàllore jooja moom mooy kaka paasoon mu dugal moom nag gis na ni nii gaynde dëgg moom moo wàcc liggéey. Alaaji Ousseynou Diouf. Pape li ma koy wax rek moo di gaynde du dey gaynde day noppalu Pape nag euh, mën naa wax ni sonnoon na loolu mais tey dafa noppalu jugul rek te xam na si dara ndax maa ngi woon ci wetam ki mu nekkaloon tous les jours naa ko jot quatre ou cinq fois euh, Pape liy génn si gémmiñu ñëpp rek laa koy wax. Euh, sama frère boobu sama frère de combat ki nga xam ne tey jii ñoo ànd defandoo lépp mën naa wax ne kenn mënul wax Pape Bouba bàyyi El Hadj kenn mënul wax El Hadj bàyyi Pape Bouba tey jii. Euh, dem rek moo ñu taqale li ma koy ñaanal rek mooy yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko suuf nar a si kawam ay ñaan gi war ko fekk fa mu nekk. souvenir ban nga am si kaw bëgg a jël ban souvenir souvenir bu ñu gën a am moo di contre la France c'est sûr que mooy euh, bi ma koy paas muy dugal mën naa wax ne tey jii ku wax Pape Bouba wala nga kii rek di nga xalaat El Hadj mais li may wax rek moo di Sénégal Pape Bouba deseelatu leen moom dara. état bu Sénégal nag ci euh, jiitu réew mi bi taxal na daal di koy masaw ak waa FIFA itam waaye xabaar nañu itam ci côté ministère de sports ni ñu ngi jël matukaay ngir taxawu njaboot ga ca France googa ngir seet na noo delloo si euh, rob bi ci nu mu gën a gaawee ba ay mbokk mu it tiis bu métti bu dal ci kaw équipe nationale bu Sénégal waaye Youssou Dabo nee na nag dañuy nangu dogal bi ndax loola mooy euh, li suñu borom namoon ci équipe nationale bi mu doon tàggat Youssou Dabo ci micro chez. ñu euh, euh, doxee neex na ma xale yi seen diggante ak Sierra Leone seen diggante équipe yi ngeen joué si poule yëpp wane nañ ci Pastef bu am solo léegi nag ci final bi xam nga final moom dafa di match bu diis surtout ay xale ñii ay goño la ñu ñu war a tàggat gën leen a pousse ñu gën a avancé jëm ca ndax euh, fi ñu toll ci seen wàllu frais formation yu mel noonu faw loola di si ñàkk waaye nañu continuer di liggéey bi gën leen a pousse ñu teg football bu gën a diis bu gën ànd ak maturité ngir nag ñu mën a am dam waaye ay xale lañ bu ñu fàtte loolu nañ leen gën a jàppale gën a liggéey li ci kanam euh, bu soobee yàlla ñu ngi jàpp ne bu ñu ko bàyyiwul dina baax. S'ils prennent pas de risque à cet âge, ils ak euh, football ba tey démb. Teungueth FC ci wàllu Ligue des champions euh, ca Banjul googa la ñu demoon ñoom dana fa tëwoo ak équipe bu Army Force euh, Gambian euh, ku ne am nga ci benn ci sa kañu morom entraîneur ba Abdou Gueye mi bon équipe bi nee na résultat bu dal xelam ndax la ñu fa gis bu ñu ci amee as tuut lu ñu ci jooyante bu ñu dikkee Ndakaaru mënees na noo dóor Gambien yi daal di jàll ci pàcc bi ci des Aladji Assane. jërëjëf Malal Junior Diagne ñu egg yéen mbokk yi ci chronique culture beeg Aladji Ndate Diop. dal leen ak jàmm budget bi ñu dogal ministère bi yëngutu ci wàllu aada ak cosaan ak wàllu communication ci atum 2021 jàpp nañu ko ci ñaar fukk ak juróom benn ci ay milliards yu tegal juróomi téeméer ak juróom fukk ci ay millions ak lu tekk maanaam ñu gis ca ak yokkute bu toll ci ñeenti milliards buñ ko méngaleek budget bu daaw bi projet de budget boobu ñoo ngi ko woote ni ki démb lu sori lool ci guddi gi Abdoulaye Diop nekkoon ci kanamuk ñi di député ngir défendre boobu budget ci séance plénière wàllu musique ñu àdduwaat jëmle ci prix découverte RFI 2020 gannaaw Mounaya ak Mami Cruz turam dëgg di Mame Marème Touré ñetteelu artiste bi nga xam ni bokk na ci fukki nominé yi lañ leen di xamleel muy rappeur bi di Jean Baptiste Lui ñu gën ko xam ci G-side bi moom nag nee mbir mi fierté la waaye tamit défi Umar Mbow la dénk yooyu kàddu fierté la pour bépp artiste boo xam ne tey yaa ngi yëngu say ci musique ñu tànn la parmi euh, temps d'autres ñuy jëkkati sa musique ñu ne la bokk nga ci dix finalistes yoo xam ne jot nañ leen ràññee pour ñoom ñu kon compétir ñu nekk ci benn concours damay naan d'abord loolu fierté la ba pare day won ne juste nit yi que boo nekkee ci benn affaire boo ko gëmee te nga def ci li nga xam ne moom moo la war di nga ci am ndam te dina permettre tamit yeneen nit ñi nga xam ne ñoom ñoo la entouré ñu la jot a bàyyi si yoon bi ñi nga xam ne ñoom ki moom ak nekk boo jàppee rek tôt ou tard nga gis lumière bi nga xam ne moom mooy nekk si kanam défilé tamit parce que tey boo nekkee tey si benn domaine xam ne surtout musique ba pare ñu ne rap déjà ñun xam nañu déjà rap li nga xam ne dañ ko xaw a marginaliser entre guillemets si Sénégal ñu bëri dañu doon jàpp ne peut-être mënul mënul nekk défilé encore par rapport artistes la tamit yi nga xam ne ñoom ñu laa nekkal si gox bi nga xam ne moom moo nekk euh, Grand Yoff aussi en même temps woote nag ci jamono gi ñoo ngi koy wéyal ñetti fan ci weeru décembre lañ ko fas yéenee ndar ka nga xam ni nag moom moo gàddu ñeent fukkeelu ko édition bu prix découverte RFI dinañ ko xam fukki fan ci weeru décembre ñu fàttali ni am na ñetti artiste sénégalais yoo xam ne nii mus nañoo jël googu raaya DJ Awadi ci mille 2003 Nabi ci mille 2009 ak Marema Fall ci 2014 jaa ngeen jëf ci